li ma mën a wax ci suñu ASC bi mooy euh, ASC la boo xam ne dinga ko créer ci kaw ci ci maanaam euh, pour mu dikk nekk loo xam ne dafay jàppale su euh, sukkandiku li li tax suñu quartier suñu gox mën a sukkandiku ku ne xam ne tey jii ni ASC dafa am lu bëri lu muy joué ci biir koñ bu ñu jàpp ni ASC nawetaan kese moo tax ñuy wax déedéet ASC dafa nekk loo xam ni fa la jeunes yi di war a retrouver wu pour que ñuy mën di porter euh, le di mën a porter euh, euh, comment dirais-je voix yi nga xam ne kàddu yi nga xam ne suñu parents yi moom la ñuy am bu ko jëfee te dañu am kàttan bu ko jëfee donc tey jii nii suñu ASC e bokk ñun. bokk na ci li nga xam ne loolu bokk na ci li nga xam ne tey gën a taxaw ñu taxawal ko parce que bëgg na tey suñu quartier bu ñu fu ñu cité ci quartier yi ci biir Thiès mu bokk mu nekk un exemple mu nekk quartier boo xam ne vraiment euh, gis ni ne foofu la émergence bokk na ci quartier yi gën a émerger ci biir euh, Thiès. 72 heures moom comme ni ñu ko déggee ñetti fan la ñetti fan yi ma àjjuma samedi ak dimanche donc àjjuma ci suba dinañ def tuuti euh, génie en herbe Euh, ak dictée pour ñi nga xam ne mooy suñu rakk yi nga xam ne ñu ngi ci euh, collège bi ak euh, ci lycée bi bu ngoonee dinañu woo suñu mbokku journalistes yi ñu ñëw ñu def leen présentation koñ bi wax leen aussi suñu ndorteelu journée yi suñu li nga xam ne moo nekk une première édition journée yi ñu bëgg a def samedi bi nag ci suba incha allah ñu bëgg a def benn genre waxtaan. ci diggante population bi ak euh, ñi nga xam ne ñoo ŋànk euh, wàllum euh, koñ bi ñi nga xam ne maanaam daal lépp loo xam ne tey jii nii ñoo ci war a taxaw ñoom dinañ ci wax dinañ wax ñoom lan mooy seen seen liggéey lan la ñuy dox ci koñ bi lan mooy seen njëriñ ci koñ bi aussi dinañ def ci ngoonee dinañu def tournoi football pour que xale yi ñun jeunes yi ñu mën génn ak suñu parents yi ñëw seetaan parce que aussi ci la bokk tàggat suñu yaram tuuti daal di bégg suñu bopp bu ngoonee nag suñu euh, sœurs yi suñu suñu euh, mag yi jigéen yi yeeg rakk yi jigéen yi ñu def tàndbeer danañu def euh, lu ñu woowee ngel su ko defee tam ñu mën tam ñu mën a gis seen bopp ci biir ASC e bi ci dimanche bi ci suba incha allah ñu daal di def nag benn randonnée pédestre randonnée pédestre nag mooy maanaam dañuy def benn genre dox du doxu ñaxtu dara mais doxu jàmm la euh, dox boo xam ne euh, diñ koy def pour mën a xam fa la koñ bi yem ak lan la koñ bi mel ku ci nekk xam fi nga li nga war a def ak li nga warta def su ko defee nag bu ñu ñëwee ci ci daar bi dañuy commencé nag daal di bay ñax bi fa nekk parce que dañoo jóge ci nawet te foofu mu nekk dafa xaw a am bëri tuuti ñax également xaw a jege tuuti euh, àll bi léegi su ko defee bu ñu ko bayee nii taal ñax yeeg yooyu noonu euh, dañuy peinture koñ bi tuuti couleur ASC bi bu ko defee nag bu ngoonee incha allah ñu daal di def euh, finaalu tournoi bi. waaw boo gisee loolu lu ko waral mooy moom dafa ñu dafa ñoo jël adopté ñu dafa nangu wàcce boppam te bokk na ci dafa nekk ci digg doom bi digg doom bi maanaam dafa nekk ci diggante paa suñu paapa yi ak ñun jeunes yi donc moom tey nekk na toll na foo xam ne euh, waxtaan ak moom du jafe parce que du créer conflit de génération mën na comprendre paay mun na comprendre jeunes yi te moom aussi dafa ñëw mën leen ñëw la ma jàppale leen te waxu ko parce que dafa am intention yeneen lu dul kese dafa bugg jàppale koñam parce que ku jàppale say say rakk ku jàppale say say parents danga jàppale sa koñ te lépp loo def pour sa koñ yaa ngi ko defal sa bopp donc loolu bokk na ci tey li tax mu ñun ñu am courage dem na ko donc yaa ñu nekkal suñu président moom tamit mu nangu ko nekk te vraiment mu nekk loo xam ne lu ñuy rafetlu la te di ko ñaanal parce que vraiment depuis lors bàyyiwul benn yoon euh, euh, euh, benn yoon ASC bi tout le temps mi ngi xool ni ñuy def vraiment ba jàppale ñu te loolu ñu ko ci remercier au passage waaw. Mhm.